alors Mout bu ñu déggee li nga xamante ne moom moom nga fi yëkkati exemple yëpp yi nga xam ne joxe nga ko fi mhm. est-ce que politique c'est vrai que yëfu àdduna dafa war a yegg ba nit ki di renier ci li nga xam ne moo doon kàddu dem waaw xam nga le problème c'est quoi mhm. euh, homme politique yi ñaari nit laa gis mhm. laa gis ni gisaguñu defaguñu wax waxet nañ wax wax waxet mooy Mamadou Lamine Diallo man di tekki gisaguma ko mu def wax waxeet mm-hmm. ak Babacar Diop bu JDS mm-hmm. FDS FDS ah mm-hmm. keneen koo fi gis politicien keneen koo fi cité ma ne la wax na wax waxeet tel jour lii la waxoon génn ci lii la waxoon génn lii la waxoon génn la wax waxeet Sonko boole woo ko ci non Sonko il avait dit que Abdou Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade les anciens présidents dañ leen war a fusiller. mu génnaat ne waxu ko. non dafa génn dem ànd ak Ablaye Wade ne ko na ko jàppale mu nekk président ci élection présidentielle. loolu wax waxet la. Ousmane Sonko nee na fi ab kii def ko woo wuyu ko. Euh, euh, Karim Wade. élection présidentielle yi Karim jox na ko xaalis ki ko jox mbay la sant. ah oui ah 10 millions oui. participation nga jàppale ci campagne bi. Euh, lan moo indi loolu. non non non non xam dama dama juste pour dire que wax waxeet. waaw mais c'est une révélation que vous venez de faire. waaw mais bien sûr wax ah. waxeet. ñoom ñëpp ñoo koy def. Hmm. baax na xoolal bu xoolal baax na. alors mu baaxul essentiel taxaw foofu rek ci ci ci naka. la ko joxee dix millions bi amitié da koy jàppale ci élection yi wala lan. campagne électorale. ñëpp di joxe di jàppale ñii di joxe carburant ñii di joxe t-shirt ñii di joxe lii mais mu jàppale ko. mais est-ce qu'il a été demandeur ah est-ce qu'il a été demandeur loolu sax c'est autre chose. Ah. xam nga xam nga xam nga sax c'est autre chose. nu mu demee parce que dama yaakaar nit ki bu la woowee téléphone wuyoo ko. bu la joxee waroo koo jël. ci diggante bi xam naa déggante nañu. waaw mais non non loolu en fait en fait en fait peut-être yow yaa koy défendre fii. Euh, euh, non non si si si nit su ma woowee wuyuwuma. Euh, su ma waxee du su ma su woo joxe. entre temps les relations peuvent changer am ndax li tax nga sib ah. nit ki ba jëloo ko téléphone. Hmm. relation warul am parce jikko ci tax jëloo ko jikko jooju dañu fi mënu fee jën en en truc. alors da wax léegi ne. parce daf leen xaaral daf leen conseil daf leen. teg comme hmm. ay nit ñu système yoon te ni. si bi lañ bokk. Karim ba léegi ci système bi mu doon doon critiquer la ma ko Ablaye mm-hmm. Mm-hmm. donc bu fekkee jox na ko mu jël mm-hmm. c'est parce que moom il s'est renié et il n'est pas le seul ñoom ñëpp ils le font maintenant il faut que ñu xam comme je l'ai dit tout à l'heure euh, nekkuñu ci ci nit day nekk sénégalais sax bàyyi nationalité am nekk français. Mhm. nit day nekk jullit sax wala mu nekk catholique bàyyi di diineem jëm ci beneen diine. foofu mhm. balaa nag ay parti politique waxoon naa ni lii baaxul mu ji. Mhm. léegi nag le problème c'est pas les hommes politiques au Sénégal. ñun ñun population bi. ñun ñi leen di topp. di sol seen i t-shirt. bu ñu wootee ñu ñëw wuy leen bu ñu nee na leen voté du ñu xool ñii ñooy ñan ñu voté leen. ñun ñooy problème suñu bopp. mais hommes politiques ñoom ñi ngi hypothéquer aujourd'hui ses chances ci li nga xam ne moom mooy politique ndax li ko li ko li ko euh, tab tey décret la hmm. donc c'est un acte qui est précaire suba mën nañu ko effacer mën nañu ko dindi ci conseil économique social environnemental waaw loolu lecture la hmm. mais beneen lecture mën na am tamit Macky mën na koo xaalal jox ko mu toog moom lecture la beneen lecture mooy mën nañ dem ba ci kanam moom ci foofu mu démissionné hmm. lecture la. lan lañ mën a jàpp en fait par rapport à la question que j'ai posée c'est-à-dire que acte boo xam ne précaire la avenir am ci politique ak est-ce que hypothéqué aujourd'hui chance am yi nga xam ne. peut dans le futur. non pour pour pour président de la République wala pour la uh-huh. uh-huh. ko jox ko l'une des plus grandes institutions du pays. Uh-huh. mais je pense que il a atteint ses objectifs politiques à peut nga jàpp ne mën nga jàpp ne fi ñu ko doonul fi ñu ko xaarul woon muy nangu conseil économique social et environnemental. mën na am leneen lu ne ci ginnaaw peut-être xamuñu en 2024 pour que comme ni nga ko waxee i euh, xàllal ko le président Macky xàllal ko yor mu toog nangul na i lu gën a ndaw conseil économique social mooy moom ci boppam wax na ne bi Macky toogee hmm. yónni na ko fi mu dem Libye am ay mission yu mu ko fa doxal hmm. loola bu fekkoon lu ñu war a mandargaal la ci fonction chargé de mission la. rek mhm. la mën a yem foofu. te chargé de mission vraiment nekk président conseil économique social moo ko. moo ko tane moo ko tane. d'accord dañuy ñëw ci. Euh,